pour man. Hmm. loolu laay yaakaar ca moom laay ñaan yàlla. mu bañ a benn la mais heure bi waroon naa fekk du am. mais gisoo Ousmane Sonko bi mu wotee fële dafa wotee ba pare déclaration xam ni ñuy yaakaar ni lii. Hmm. Euh, xëyul neex déclaration waaw. parce que euh, non xaw ma li tax mu wax ko. mais yu mel noonu la <laughs> wax waaw yu mel noonu la wax mais mais xam nga Macky Sall su ma nee dañ ko nax xoolal tey li xew. Hmm. parce que réew mi ñun ñëpp ko bokk même seen patron Bougane Gueye Dany. mais sénégalais la. bien sûr def fi ay preuve liggéey. bien sûr. mais danga ko war a considérer. Mhm. mais tey ñu ko cër bi mu yellool. jox ko cër. Mhm. mais ña sës président ñooy ñëw président mën naa bañ a xam sax euh, exactement ce qui se passe mais du ñu def ko non non non ce la président ki bëggunu kii nangam nangam di ko da euh, li ñuy wax suul ndaanaan. Mhm. dañuy suul ndaanaan ba du jariñ dëkk bi. d'accord xam wax. waaw xoolal tey lecture rek mënoon na am. ci municipalité yi municipal yi. Hmm. municipal ana demoon ca Bougane ñëpp ànd ak ñoom gañe Bamba Fall benn gañe maire yi ku ko gañeloo ci biir kii ñoom maar bu tëngéej ñoom Tamsir Soxna. Hmm. ñoom euh, numu mu tuddati. xaw oh, naan Diallo. Euh, oui ñoom kii. ak kan Mohamed Diallo Mohamed Diallo am na tax keneen ku des. xaw maa na moo di sax bi doon naa leen. mu ngay génne liste rek. waaye yow ñii. da nga ko bind xanaa. non bindoon naa leen ñoom ñoom daawu ñaanjam. waaw. yow ñooñu anañu bu gaa taxoon ñu gañe. Mhm. mais suñu neex yi demee di di wax Macky Sall ba mu jël ñooña. Mhm. def leen ci liste député. Mhm. mais militants yi seen bopp. ñooy am lu leen naqari même ñaar àndoon ak ah. président Macky Sall. militants yi de kenn moomu leen. mais ñi àndoon ak président sax. ñooy wax ne mais ñun ñun ñu jëndee. même suñu continuer di wane ni ànd naan ba tey meruñu ñoo gën a mer ñëpp dañuy frustré wu. Mm-hmm. te ñi ñëw ñu jënd leen ko militants yi di mere. Mm-hmm. won leen neen que ñoo leen faloon ca maire yi ba ñoo taxoon ngeen am li ngeen amoon. Mm-hmm. ba président Macky Sall am ci yéen yaakaar tey ñu nangu ko. noonu la kon noonu la kon ko. mais kon peut-être loolu mooy loolu mooy jox preuve ne transhumance euh, peut-être. Euh, mais amul njëriñ. ndax sooy transhumé sooy transhumé yow sa bopp rek ngay yóbbu. yóbbaale woo kenn. yóbbaale woo kenn. tey. le président Macky Sall liggéey la xam liggéey bi lay su ngeen ko xamoon bay toog ak liggéey la man liggéey lay def. liggéey la xam Sénégal la bëgg. Mm. mais nag soo ay nit ñoo xam ni tuur yalwaan lañ fi nekkee yàq seen intérêt bopp seen intérêt rek seen lu nu am buggunu buggunu réew mi. Mm-hmm. buggunu tey d'ailleurs am na gisoo élection yi bi mu pare am na ñu commencé sax di téléphone ay yeeweeg yooyu di di félicité di def ay clin mais Gaston yow ngay xeex tribunal génneegul non mais d'accord on est on est on no il faut ñu wone boobu ñuy wone élégance boobu ñuy wone waaw mais lu sotteegul même suñ ko mhm. xam nga Sénégal xam xamee nit ñi nag xam nga clin d'œil dafa dafa bari ci réew mi mais peut-être c'était une manière pour calmer militaires mais mais xam nga bi nga fi taxawee ba tey mhm. suñu la déggee mooy excuse ngay wutal le président de la République Macky Sall moom mi yor bi mhm. ma yeggale rek di ko dawal waaw parce que li nga fi wax yëpp mooy ñi ko jegee ñoo soxor ñi jël téléphone bi ñoo koy yàqal yàgg moo tax may ñëwaat ci question bi mhm. maanaam à chaque fois bu ñu la déggee da koy wutal excuse alors que euh, tey euh, moom moo yor li ñuy wax ci guyam parce que moom mhm. mooy tànn mooy choisir il faut choisir euh, les bons profils bu fekkee dañu la dénk est-ce que du ci am part de responsabilité beneen bi nga boole ko effectivement am na ci dana moom dañ ko ko euh, moo leen tànn. effectivement par ay moo tëj ci biir néeg mais dafa am ay influence ay nit ñoo xam ne xam nga tey. man am naa nit ñoo xam ne tey même su may taxawal samay combat am na ñoo xam ne dañuy ñëw toppam ma père mbër moo xam ne amul amul kenn ma def erreur <laughs> erreur ku nekk koy def nit ah. rek la président Macky Sall alors beneen bi moom mooy mm-hmm. sànq yaa ngi wax ñi nga xam ne dañu àndoon ak coalition gëm sa bopp dem mm-hmm. nga jàpp ne peut-être que ñi mu entouré parce que aujourd'hui ñi nga xamante ne daf leen écarté ku ci mel ne euh, grande coalition gëm sa bopp njiit li mm-hmm. euh, toogul rek banque loxoom dafa dem battre campagne. pour dire non ak. battre campagne boobu njiit li njiit li may ma parenthèse njiit li non njiit li li gars yi am sax. ngi euh, buggaan ngay dane may na leen ci lu mu gàtt gàtt quinze ba vingt pour cent. waaw léegi loolu mu leen ci loolu mu leen ci loolu ñëw yoonam nekku ci waaw gaston la loolu la xëy lan nga xam ne ci may lan moo ciy responsabilité mhm. euh, président Macky bi nga xamante ne c'est vrai que conseil constitutionnel bu ñu ko waxee moo leen di tabb ñu écarté euh, ñoo xamante ne élection locale yi gis nañu mhm. lu ñu am mhm. mu écarté leen moom peut-être am na sañ-sañ ak prérogative yi mu waroon permettre ñooñu ñu bokkaat ci biir élection yi parce que ñi nga xam ne ñooy société civile doon nañ ci wax doon ci jox mhm. mu bañal leen ko lan moo ci responsabilité am ñuy xañ ñenn ñi ñuy bokk élection foofu amu ci responsabilité mm. parce que conséquence mënu la wax waxam président di ci dugg su ci duggoon tey ñu ne li tax defu ko woon bee yoon lay tax mu toog ba tey mu koy def wala lii tax parce que sénégalais dañu ñu ko ñu ko bëgg dañu ko rafet rafetlu mm. mais nu euh, contre yi dañu fexe bu xëpp ci suuf yooyu loolu yoonam nekku ci du ko def mm. mais li ma xalaat man président Macky Sall dana defaat lecture dana seetaat. Hmm. parce que moom it moom bon peut-être que assemblée bi dana xaw a kii ak yooyu. Hmm. parce que man li ma yaakaaroon ñi ñii doon hmm. moom la ñuy yem ci député dana ko ëpp mais dana dana tax ba mu mu def beneen lecture. introspection introspection. seetaat xam mais nit ñi xam. Euh, ñi ko ñi ko ñi mën a liggéey. pour réew nga defee nii euh, président Macky Sall amoon na nit ñu doon liggéey. mais ay ñii fi nekk tey man suba moom palais bi civil yëpp lay dàq. nekk fi boole kook ab Boun Abdallah Dionne ay ñoom Aly Ngouille Ndiaye ay ñoom Omar Youm ay nit ñoo xam ne liggéeykat la ñu woon. ay ay Mimi ay yooyu yëpp ay liggéeykat Mimi Touré et tout ça ñu fexe ba écarter leen. des fa ak seen médiocrité di yàqal le président Macky Sall ay un Moussa Diop ca Louga. Hmm. nga xam ne tey mu mosu leen ko. Louga moom xanaa war ngaa xam information yi. waaw waaw mosu leen ko koo xam ne mosu leen ko invité ci plateau. moom moom jox résultat Louga commune ba a dee. Hmm. bureau nekk fa. non Aminata xam nga euh, bon nekkoon na fa nekkaat fa. Hmm, euh, am na loo xam ni kenn mënu ko wax d'ailleurs maire bi démb nee na nee na Aminata Mbengue Mamour Diallo. Mhm. ak euh, Safa Diop non Safa Diop wax loolu ak euh, le directeur de Dakar Dakar Dem Dikk. Silla euh, kii Silla waaw. ñoo ñoo joxe ay consignes la woon. Mhm. d' abord Aminata Mbengue nekku fi depuis un pour d' autres donc mu ni ñoo ñoo joxe consignes or que ñooñu. Mhm. ñoo gën a sonn sax ca moom parce que moom. comme li nuy wax parce que wax nañ ko président keroog ci palais bi mu recevoir waa Louga. moom dañ ni sax mi ngi ci yoonu jëm ca Sonko na mu jógee woon ci Abdoulaye Wade ñëw ci Macky Sall ma ngi ci yoon woowu. Hmm. donc bëgg jéggi clôture bi bëgg jéggi clôture bi def d'ailleurs d'ailleurs ay mandataire am yu ci bëri démb il parce que ay waa yeew yi la moom eh? yooyu yëpp wax nañ ko fa mais gañe na Père Gaston boobu nga fi génnee département ba yaa ngi def ay révélation la fi génnee non man man ay Gaston man du ma li may wax daf may leer <laughs> département ba nag Louga ko gañe hmm. kon tey ñoom moom ñoom fa tegoon génne ku mel ni Mbérik Sylla fexe ba. parce que du ma ni président génn parce que président dafa am ay nit ñoo xam ne amoon na ci ñoom confiance yaakaar leen. mu mu mu ragal yi ñu génne ñu mel ni ay Mbérik Sylla ay Rokhaya Diaw ñam fa teg tey lan lañu ay député yóbbaale ma département leen yóbbaale mais su doon commune rek la ñuy jël duñ ay nitam duñ dugg. donc ñooñu ñëpp war noo xaar sax président Macky Sall leen dàq dana war a démissionner. comme ñu ngi yaakaar yeneen parti yu ñu jëm ñu jëm fa. Hmm. parce que président c'est pas la peine muy compte ñu mel parce que président nit ñi bañu nu ko nit ñi bëgg nañ ko mais il mu teg loo xam ne su ko tegee ñu ni lii lañ doon xaar ci yow. Hmm.